رئيم يا نزير يا الله يا رحمن يا بشير خابر يا رئيم أشهد أن محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki seetaan seen télévision Touba TV ñoo ngi am mbégte di ñëw ak yéen seen émission entretien tey jii nag mu nekk émission spéciale ñu koy amalee fii ci kër Serigne Abdou Samad Mbacké moom Cheikh Souhaïbou Mbacké fas yéene waxtaane yi tamit histoire fas yéene waxtaane jumaa yi Touba bi nga xamante ni mooy semboolu yoonu murit jumaa ji nag di liggéey bu yàgg bu am taarix jaar yi tamit ci diggante yu am solo jotaayu tey bi nag li ñu ci yitteel mooy ginnaaw bi nga xamante ni Cheikh Modou Moustapha wàcc na liggéey ci 1945 Cheikh Mahamadou Fadilu Mbacké nekk xalif général ku lu murit tàmbaliwaat liggéey bi taxawaat ci beneen taxawaay bu bees ngir waxtaanee liggéey boobu nag moom la ñu dajee ak mag ñi taxawaay bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadou Fadel taxaw na ko ci jéego yu rëy yi nga xamante ni noonu la ko ci def ba ni nga xamante ni noonu la liggéey bi àggee ci 1963 mu jiite eh, jumaa ji liggéey boobu nag ak la ca def lépp incha allah ñu ngi toog ak mag ñoo xamante bokkoon nañ ca liggéey ba jëfoon nañ ci taxawoon nañ ci jaxasoo woon nañu tamit ak euh, ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadul Fadil kon ñooñu la ñuy ànd ak jataay bi ngir waxtaane loolu nag ñu ngi feggoo ak euh, suñu sëriñ sëriñ Cheikhouna Bousso Cumbuleen moom itamit dañu koy bàyyi mu ubbi jataay bi présentel ñu mag ñi nga xamante ni ñoo teew ci jataay bi su ko defee ñu doog a dugg ak ñoom ci waxtaan sëriñ na yaa rahiimu yaa nasiiru ni ko sëriñ Jibril waxe ñi ngi am mbégte ci teewe jataay bi fii ci kër sëriñ Abdou Samane Mbacke moom sëriñ Chouaïbou di sant sunu borom waaye di ko ñaanal moom it ci tawféex gi ñu am ba mu boole ci jataay bu am solo bii ak yëg gi nga xam ne yëg nañ ni liggéeyub sëriñ bi itteel na ko loolu ñu ngi koy ñaanal sunu borom ak wér sunu borom guddal aw fanam te yi nga xam mi ngi koy yittewoo lépp mu tass ci ngërëmul Serigne Touba jotaay bi am solo gi ni Serigne Jibril waxee euh foko nat rek wessu nako ko tax dañoo toog ak ay kilifa yo xam ne liñ bëgg a di histoire bu aju ci liggéey jumaay Touba dañ ko fekke te sunu borom dafa jàngale ci Qur'an ni wala yunabbi'uka uka mislu khabir ki dund mbir lam la ciy wax mën tem ak kiko dundut te ñoom dund nañ ko fekk nañ ko ñaareel ba alayhi salatu wasalaam wax ci xaddis ni laysa al khabaru kal muaayana li ñuy wax rek nga di ko dégg ki koy wax nga xam ne ci kaw ak dégg la ko teg yemut ak ki nga xam ne dafa jàkkaarloog mbir ma di ko wax ñaar yooyu yëpp nag dal na ci seen kaw mooy dund nañ ko teewe nañ ko ñoom nag lañ bëgg waxtaanal ci histoire boobu muy sëriñ yuusu jaañ mi ci sama wet bokkoon ci mag ñi nga xam ne sëriñ Muudu xàbban moo ko joxoon Cheikh Mahamadul Fadil ci bi muy laaj ñoo xam ne dañoo war a jàpp ci liggéey bi naka noonu sëriñ Masamba sëriñ sëriñ Bàcci Mbàkke nga xam ne waajuram moo ko joxe woon di sëriñ Mbàkke Saalum mu yàgg loolu moom it ak Cheikh Mahamadul Fadil naka noonu sëriñ Ibrahima Seck nga xam ne moom sëriñ Muuru Buso moo ko joxe woon mu bokk ci ñim joxe woon moom it mu teel a ñëw lool ci liggéey bi ndax ba muy ñëw dana ko leeral ci biir waxtaanam liggéey jumaa ji ñaari soroor rek ñoo xaw a raase muy bi jëm Mbàkke ak bi jëm Daaru te booba xaw naa gàtt tuuti xam naa bala ñoo jox sëriñ Jibril ngir moom mu wéyal liggéey bi laaj leen laaj yi nga xam ne moom nañ bëgg a waxtaane dañuy indi ak leeral tuuti ci liggéey boobu ngir wane ni Cheikh Mahamadul Fadil daf doon laaj kilifa yi fi nekkoon xam ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñam ko doon laaj nag ci jamono jooju euh, mooy ñi nga xam ne ñooy mag gi fi nekkoon ndax moom ci jëmmi boppam sàkkoon na ay donga ci kër ñu bokk ci liggéey bi sëriñ Mor Mbàkke doj sëriñ Cerno Faal Juma alxaaji Abdu Mbàkke Ridis Abdu Salaam Sekk sëriñ Seen Njaay Mouhamadou Seck masoŋ Mamour Kanji Xawsu Jaxate Cheikh Touré ku ñuy wax Abdou Latif Mbacké waaye njëkk ñooñu ñi nga xam ne ñoo joxe woon ci mag ñi dañu wax ne moom Cheikh Mahamadul Fadil moo joxe woon na Cheikh Mahamadul Bachir joxe woon na Sëriñ Abdul Ahad joxe woon na Sëriñ Abdul joxe woon na Sëriñ Saalihu joxe woon na sëriñ Chouaïbou joxe woon na cheikh Mahamadul Mourtada ak alhaaji cheikh Mbacke ak sëriñ Mouhamadou Xawa Balla Mbacke ak sëriñ Modou Fati Xari ak sëriñ Mouhamadan moom sëriñ Massamba ak sëriñ Mouhamadou Xabbaan ak sëriñ ak cheikh Mbacke Madina ak sëriñ cheikh Ndiaye ak sëriñ Mouhamadou Mbacke Alfadilu ak serigne satu jaxate ak dam, jorlo, serigne bara khuja serigne bara kharija khuraja al muhammadul maamun bakke serigne mustapha gay yarawaay serigne muhammad buso gede serigne bakhir buso gede sëriñ Bar, mbar sëriñ muudu moor pend mbàkke sëriñ muhammaduloo daam ngabou sëriñ Moustapha Diop sëriñ Aliou Touré sëriñ Mouhamadou Hawa Touré sëriñ Mouhamadou Seck Taqe alxaaji sëriñ Dia sëriñ Mor Ndiaye Andal sëriñ Lay Silla sëriñ Lamine Silla sëriñ Modou Xari Dieng sëriñ Abdou Dieng Balla Fali sëriñ Mor Fall Karama sëriñ Hassan Bousso sëriñ Mbacke Saloum ñooñu mooy mag ñi nga xam ne kenn ku nekk yëkkati woon nga ay donga jox ko Cheikh Mahamadul Fadil ngir ñu jàpp ci liggéey bi ñett ñi ñu bëgg a siqal jataay yi nag kenn ku nekk ci ñoom kenn nga ca ñooña xanaa baamtu ne sëriñ yuusu mii sëriñ mudu xabbaan moo ko joxe woon sëriñ bàcc mbàkke waajuram sëriñ muhammad saalu moo ko joxe woon sëriñ ibrahima Seck sëriñ muur bu so moo ko joxe woon kenn ku ne ci ñoom nag am na loo dund am na loo teewe ci liggéeyu jumaa ji nga xam ne mooy lépp Serigne Touba moom lañ bëgg a waxtaane ak ñoom ñu yulil ñu ci ay xam-xam yoo xam ne yu làqu la yu roqe kon Serigne Jibril Ndaw dañu lay delloo kàddu gi nga daal di dugg ak ñoom ci laaj yi. jërëjëf Serigne na ci ubbi bu am solo boobu xam naa dañuy tàmbalee ak uh, Serigne Bàcc Mbàkke mu ubbil ñu gannaaw sëriñ Fàllu lañuy ñuy waxtaane ak liggéeyam. moom mi nga xamante ni moo nekkoon ci sëriñ fàllu mu ubbi jataay bi wax ñu kan mooy Serigne Fallou ak fonk gi ak taxawaay bi nga xamante ni taxaw na ko ci liggéeyu jumaa ji su ko defee ñu doog a ñëw ci mag ñi nga xamante ni nag ñoo nekkoon ci liggéey bi kon Serigne Bàcc bisimilah. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. barke Cheikh Mouhamadou mm, mm, Bàcc Mbàkke moom sëñ Mbàkke Saalum. moo ma yëkkati woon teg ci loxol Cheikh Mamadou Fadal mu yaral ma boppam dugal na ma ci biir këram ma yor ko yóbbu na ma Tuubaa ba ko jumaa ji ñu julli ko mu indi ma ci jumaa ji sëñ Fallou moomu yi nag mooy koo xam ni kii ku sëñ Tuubaa ñor la ku murite la ku taalibe la ndax bi ñuy liggéey jumaa ji day bu xëyee toog ci pilier bu jullee ba dafi lawraata toog ci piliyaanam bunt këram ak bunt jumaa ji ñooy jàkkaarloo miir bi nga xam ne moo dox diggam ak bunt kër ba da ko fay day gàtt ba su toogee bu jógee taxaw kay dugg ci jumaa ja da koy séen ak bëtam ngir liggéey bi ñor ko bu xëyee balaa mën a jëfandiku ndékki dañuy fëgg weñ gi ba mu xam ne tey jii kat nit ñëpp nga jëm ci jumaa ji liggéey mu soog wàcc bu muy def mu soog koo def waaye bu xëyee feek déggu ñu ne weñ gi kàng sëñ bi doonul ci boppam dara ma ngay toog di dégloo rek nga xam ne waxtu ne bu jógee taxaw rek seen ku dugg ci biir jumaa ji saa yu jógee rek seen jumaa ji ndax mii bi da koo gàttal ba tiim ko ngir ñor gu ko sëñ Tuubaa ñor loolee nag ci la yàlla mi ma taw féexeele suma jur jox ma ko mu yoral ma boppam moo waral lii nga xam ne moom la suñu Abdou Samad dégg ba tax mu wooma ci xew-xew bi mooy matub jumaa ji nan la demee keroog bi nga xamee ne dañ ne tey lu jumaa ji yegg ku ñu wax Ousmane Fall te néewoon ci biir kër gi te bokk ci gammaat bi ci waa daara ji yàlla dogal ñu xaritoo lool nag ban jullee tusubaar ba muy gorlu ji mu ñëw déey ma ne ma sëñ bàcc di jumaa ji tey la liggéey bi yegg ma bëggoon nga yëg ko ndax nga barkeetu ci ma daal jóg fekk sëñ bi mu ngi ci néegu ñax ba fatu na war a noppalu ma tëj ko baraag bi daal di daw dem tibbi ci aw gaal ba may laat àgg sëñ bi jóg di ma laaj ñuy fakk si ma ca kaw ne ma yow kat sëñ baa ngi lay woo ma ñëw mu ne ma foo demoon ma ne ko Ousmane Fall day ñëwoon fi man ne ma liggéey jumaa ji day tey la yegg ma dawoon doon ci barkeelu ji mu ne waaw kon nag demal tibbi ci aw gaal yót ma ma dem tibbi palaatu ciment andil ko mu teg ko fi soof toog di bind di ñaan di bind di ñaan ba mu bari lool mu tëfli ca ne ma yóbbu ko ñu def ko ca ba ma ñëwee yéeg ba àggaat ca kaw maa ngi ànd ak sëñ Ngom ndax sëñ Ngom day ñëw fekk may génn ñu daje ma wax ko li ni yoon wi may doxi ñu daal di ànd ñu ñaar bañ àggee fekk na ñu defar xalagoo gi ci kaw ba noppi di ko rattaxal maa ngi fekk seenaardo tubaab bi taxaw mbay juuf seex maçon bi taxaw seex mambala taxaw keleen ñeenteel nag xaw ma ko waaye ñaar taxaw ci kii wet ñaar taxaw ci kii wet maag si ne leen sëñ bi day moo joxe ciment bi nee nañ ko ci def fekk ñu rattaxal ba noppi waaye dañuy jëlaat seen tureel xeet ko ba mu xëcc ñu teg ko ca kaw maasale ko loolu moom yàlla dowal na ma teewe ko fekke ko nii ak tàkkusaani suuf la sëñ bi nag li tax nga xam ne sëñ tubaa rek a ko ñor diirub ñuy liggéey jumaa ji njabootam gi sax amuñu woon kër tawlu leen jumaa ji rek moom ci boppam amuloon ay tabax ay baragi denk ci la newon ndax defutoon yitteem ci lenn lenn lu dul jumaa ji rek yegg waye kero bi nga bi julli nañ ko ba je suba ñu xey di nekk ni wégal mu ne ko ana usman mu ko maangi ni nii de Mbàkke mu ne ko legi neegi ñax neegi ñax yi nuñ def baragi nuñ def mu ne ko ah neegi ñax yi sax de ko nañ mu ne baragi yeeg neegi ñax yi yépp sappi nañ ma nañ tabax fu ñu dëkk ndax milliards yaa ngi ñëw milliards yaa ngi ñëw waaye la jiitu loolu sëñ Fallou benn baraag bi ko sëñ Ablaye Fall doon defaral te mu war a siggi ca kaw te bañ koy tabax fekk mu nekk ndindi ba mu ñëwee ci guddi fekk euh, portail we ñi taxaw mu xool ko gis ko ci ne waaw lii ma ne ko baraag bi day bal gànd yi li lañu wutal jën woo xam ne day gudd ba baraag bi siggi su ko defee weñ yi nag bu ñu leen takkee ba ca kaw ñu sol ko ciment ah, xar ko balgand yi jaar ci eh, tëral yi jaar ci bant yi jëm kaw mu ne buñ fi tabaxee ma toj ko de jaaluwaali ma Ceerno Faal sax ma ñëw ne bàyyi Ceerno mu ne ma ne ko ah, yenn ko di xëddee dañuy déggoo sëñ bi kat baraag bee weñ yi fa sampee ko jaaxal nee naa ko nag ay jën la ndax jën yi war a joti bant amu ko ñu bëgg moo tax ñu def koy weñ bàyyi ci ànd dikk daal di jaar foofu mu ne ah baax na baax na bu fekkee lu rek la baax na mën nañ ko liggéey bu dee bu dee tabax ma toj ko de tabax bii rek booba tabax bii yëggagut tabax bii rek koo koy sëñ Fallou jëre ngeen jëf. jërëjëf euh, Serigne bàcc ci ubbi bu am solo boobu xam naa sax bàyyeeguñ la. ndax itamit am na lu ñu ci ñor lool mooy ba mu àggee ak julli ga ak nan la ko nan la ko sëñ Fallou defee woon loolu dinañ ci ñëwaat waaye gannaaw dañoo nekk ci liggéey bi ñu euh, ñëw nag ci Serigne euh, Ibra Seck bu Gédé sëñ Ibra sëñ naa wax na ko euh, Serigne Modou Bousso moom sëñ Mamoun moo la indi ci liggéey bi te yaakaar naa itamit 1954 nga ci ñëwoon ma xam rek liggéey bi nan la demee donga yi nan lañ leen organiser woon ni xaaj nañ leen defoon nan lañ ko daan liggéeyee ak nan la liggéey bi daan doxee ci jumaa ji noo ngi leen nuyu leen siyaar bu baax a baax a baax te leen wax li xam ak li nu fekkee ndax man mesere sama waajur dëkk sëñ Bay Sekk mesere mu sama waajur dañoo bokk ñaari waajur mu yar ma sëñ Modou Bousso jox ma sëñ mu jox ma sëñ Modou Bousso sëñ Modou Bousso teg ma loxo sëñ Fàllu ah, ba mu ko defee mu woo Baye Thierno Fall teg ma ci loxoom Baye Thierno Fall teg ma ci loxoom Baye Diouf moo yoroon 54 bala 763 soit ba juma ji noppee yàlla dogal na fàttiwuma ca lenn fekke naa lépp itam ndax la ma fekke mooy la ma fekkee mooy euh, man ak mët sekk maçon moom ngeen di tudd ñun ñaanoo ci suñu loxo ci liggéey bi bàyyi nañ ñëpp man mersek, sekk mbay juuf ibrahima fay noo ci mujj teg suñu loxo ci liggéey bi ba nañ jullee ji aljuma gaaw dimanche altini soog noo fay suñu daniel mouvement 54 yi ba ba ba ba ba la sept soixante soixante trois 54 lañ ma joxe ci daara yi ci mbay juuf ci ci man ma nekk ci ñoom 54 ba 61 sixième mois si sixième mois bi lépp rancé ndax bi ñu fiy joxe booba ñaari soo taxaw ci sowu bu de yoonu mbàkke rancé na bu féete yoon dara toll ci xaaj mu 54 55 56 ba 61 ci sixième mois ba lépp sor yëpp rancé nag tubaab bi wax Baye Thierno Fall ne ko wax Mbaye Diouf ne ko wax la Baye Thierno Fall ko dama bëgg a renforcer ouvrier léegi liggéey bi rancé dama a raax mu wax ko Baye Thierno Fall mu ne ko mu luy loolu mu ne ko dama bëgg a renforcer dama bëgg dolli ay ouvrier ci ouvrier yi euh, te bëgguma indi ñu miinul liggéey bi mu bëgg jël si nun mu nekko nag dama bëgg jël euh, dama bëgg jël si dongo yi te ñu moo ko léegi dama bëgg wax la sëñ bi su fekkee mën naa may te eh, donc am ñu xamne formé naa leen ba wooruna naa leen su ma ma jël ci ñom man nak mbay juuf and ak bay bay charno dem si sëñ Fall wax ko leer ko mu nako leer loolu mu nako daan neena la bëgg daal bëgg donc jël ci dongo yi mu nako nak legi daal la bi dégg na li wax waye comme chef man ko neexal na koy neexal dañu di wax ki fi mu ndar keneen man sor bi ci suñu sa fi lay ma testé ouvrier ak 4e catégorie 55 75 par heure nga xamne boba kisim bi 6200 6300 nga am ci maçon nga xam ne euh, léegi nag ñu daal di yónnee yón bañ ma bañ bi ma defee noonu ñu daal di yónnee Gédé Gédé yónnee ma sama kër baay sama baay yebal ko ñu wax Sam Seck moo wuutu si muy soixante et un sixième mois ba ne jumaa ji mate maa ko ñu xam sekk nu ci mujj te suñu loxo ndax li tax nu mu loolu tax mujj mooy boo nee maa ci mujj tamit mbooloo dana xaw jaaxal ñu bari waaye ni ma leen di du jaaxal ñu bari ndax booba biir sorul mag bi boo demee ca kaw dafa am essentiel bu ni ci biir bu mel ni pléan bële nga xam ne ci kanam essentiel bi ñu ko tubaab bi nag dañ koy raax dañ ko fàtte raax léegi nag dañuy wax nañu wax nañu mbay juuf mbay juuf ñu koy raax mbay juuf ba maa yor ci mbay juuf téye ma maa ngi mat sekk noo ko raax lu mat fukki fan juróom moo noppi soog a julli jumaa ji loolu mujj gënoon ah léegi maanaam bin bi ñu embauché 66 euh, mois bin data def ñetti weer bàyyi ca nafaal nee na nu kat yéen kat hmm, dama bëggoon ngeen wutal sëñ bi àllarba daw leen am àllarba yéen dong yi ñuy fay fekk njël mi ndongo yi naa ci dellu njël mi ndongo yi juróom fukki ndongo juróom mu ci taarix bi lu ma téeméer ya ngi ci woon waaye téeméer yooyu tubaab bi daa waxoon sëñ bi yaay yaay yaay yaay yaay yaay ma ma bari ma maa def ouvrier yi juróom fukki ndongo yi ak juróom juróom fukki ndongo yi ak juróom léegi juróom fukki ma ne bari juróom laa soxla dañuy am solde solde bi ñu am nag bala bala ma bala maa retiré sama sama sama tirage bi ma bi jox sama xaalis damay jël damay jël seen xaalis bi ñu am delloo ko ci kees gi soog a li ci des xam nga loolu leer na léegi nag euh, ci ñu ñu ñu def noonu bàyyi ca dafa ne da ngeen di wut àllarba nag wutal sëñ bi àllarba bàyyi ci dafa dajale ba mat juróom-ñaari weer juróom-ñetti weer mu diñ ko sëñ Fallou ak takku saani àllarba de mu lal kaalaam ci bitti tubaab bi tubaab bi ji moom kay def na fi daanu kat moom seen àllarba ndax dafa dañoo lal kaala gi bàyyi ca dafa def ci xaalis bi génne carte bi daal di diw def na nangam diw def na nangam diw def na nangam mu ngi nañ ko sëñ bi tubaab bi daa wéeru ci ci ci kaano bu njàng mu daal di mu daal di fóoyate poosam yëpp yëpp daal gi ñu ne bi dafa daanu dégg nga euh, mu ne Mbay Juuf ko Mbay Juuf leeral ko lii daanu ci mërit mu ne ko de daanuwuma damaa xam ne mbooloo mi kenn ku ne jël si yëf def ba mu jël bu toll nii yaa ngi quelque chose dégg nga ñu daal di boole xaalis ba ëmb ko keroog ñoo ngi jaar di boole suñu Usmaan bu su fa lañ fekk suñu Fallu ci ci ci ci pilian bi ci pilian bi ci waat naaw gannaawoo xam nga daa doon baagu nyet ñetti baag nyet daa doon ñetti gi asal nii saal ci biir saal bi la ko fekk fekk ñu war naa gën a mu jul penku lu noonu waay bàyyi na ko day dong yi ñoo doon ñoo kere yooyu sax wax taw histoire ndax bàyyi na ko dong yi de mooy ñi doon ñi ñi tubaab bi jëloon di leen neexal neexal boobu dañuy wël àllarba àllarba ji moom la doon indi nii mooy jël xaalis ba dencal ko boppam dal na waaw euh, li borom liggéey moo ma waxoon ne sama bi ay ñoo koy liggéey bëgg cee bokk taxu cee bokk daw jiitu ci taxu cee bokk da ci bokk bokk ci rek dégg nga ndax tund wu ne dañu seet dëkk ba ci gën dëkk boobu ñu seet kër ga ci gën kër googu ñu seet ka ci gën ñu seet nii boobu ñu seet ka ci gën ñu indi ko ay tànneef la ñu doon lii la wax keroog aj daayira boobu ñu dem bu fii ni ñu ngi koy doxal aju muy jot dem di ñu jàngale kenn waaye lii keroog la wax loolee foofee dégg nga mooy tam daa ñëw ci biir mooy tam daa ci am ci lu sëñ Fallou defal ba waxal boppam booba kenn yi ci biir booba booba dañ koy xas bu jógee ci buntu barab bu mag boo jëm jëm sow ci biir ci biir jumaa ji ci sa càmmooñ boo ne benn kenn ñaari kenn ñetteel bi kenn boobee fa lañ tàmbalee xas kero mooy bisu àndal ba ko tàmbalee xas ba ko tàmbalee xas kero sëñ Seyid Fall mi noonu kër sëñ Fallu dafa toogal sëñ bi ndab li li ma li ma li ma jox loolu maag ku ñu xamut jom ndaam ñi xam nañ ko mut joom ndaam noo ànd yoon ndam li wuti ali booba doo dox du wuti ali muy muy ñaari cin ak ci nag ñeex maa yor ñeex xamut joom ndaam yenu yenu yenu yenu ñànkatang ñu daal dem dem ali ban demee fekk sëñ bi jultuwaa mu jultuwaa noonu daal jël ndab li jox ko fekk ba may dem bàyyi Cerno Fall jox na ma ñaari leetar bii wagu xorom la suñ moor ngoone Fall yónnee ko bii di wagu simon wax ne dañ ko war a wiisi foofu ma indiwaat ko ñu soog jëli ko ci gaar ma li idée ni ñaari ñaari ñaari leetar jox sëñ bi mu àll wa secrétaire bi ñu seet ko ñu leen koy defar daal may jox sama lettre ma defar sama poche ba nga taawu ñaari lettre yi de bii dafa ko xorom wi te lay ñu ko ci dara bii dafa ko choix bi taxaw nañu ko ci lay xaaj mu bii de moom gënal bii fuuf bii de moom gënal bii fuuf ma leen di war sama ñaari lettre kero euh, li ñu xamal yi ñu xas ban wane ñu daal ñaar ba nag sonni suñu man maa ngi mu jëm daal bi dem ba ci buntu kër bi ñu daal daw ñëw bi ñu dawee ñëw mu ne ma waaw tubaab ba ñëw na ma ne ko tubaab ban mu ne bu gàtt ba ma na ko sénar sénar iskat naa mën a ko wax mu ne ñëw na mën a ko lu ñuy liggéeyee nag ma ne ko ah ñu ngay liggéey xaw ma ba lu muy laaj mun ma xasuñu kenn ma ne ko ah ngay na ngay xas kenn mu ne waaw ñu ngi xas yooyu diwee ma ko aw mu na ma waaw maa ko waxoon maa ko waxoon mu bu ma ñëwaatee dana ko seet mu ne ma ci lam ne tubaab bi ci làmmiñam la ma koy seete mooy day wax ci suuf ñu tàmbalee xas mu yéeg ci ko su mu ay dàllam su may dàllam taxaw ñuy dóor bu ñu dee dóor dana xam na ne ayib warut ayib boo jógee ci barab mag bi ci biir benn kenn ñaar bi ko ñettee sa càmmoñ boobu lañ tàmbalee xas boobu lañ tàmbalee xas kenn yi ba tey tubaab boobu defoon loolee defaat na benn histoire wax na ci làmmiñam euh, def mu gis sax la ndax boo jógee sol mag bi ca penk boo dee ca kaw am na ñetti néeg yu gudd ci kaw ci kanam néeg ba amna ci ni bo xamne ne bu naanante man le bi bi bi bi lañ defoon njuumte la dañ ko kuli waxtu takku san jant bi bëgg so dégg nga karo yi doon monté am am am wër yi doon monte xam nga ay wër lañ ci def wër yi am buñ ci juum nee mu dem ñu kuli ba mu dem teud kërëm ba ay 4 heures jëm 5 heures ci guddi nee ku sollu lu tal ñu muru yéko wax ak mu ci lam lamp ñi jul xana karam bare nee mu na bu su barab sangam na ko sét dem nga am na juumte tubaab bi daal di jóg ci guddi gi daal di bind waxtu wa bind fa ko wax ci plan bi bind lépp bind na jëm ci melakaan wa dal di ñëw ba mu ñëwee ba mu xëysee mbay juuf la ñu ànd dem ca kaw mu ne contrôlé ñu ne seet bañ seetee bu fekk boobu am njuum te dañu ko toojaat fi sama kanam defaraat ko ah, léegi tamit li mu dong xam ne wax naa la ko juróom fukk ak juróom ah, ba tey menaan meneen mbir amee ci moo xam ne mii lëntum nañu bari sëñ Fall tàmm na jumaa ji ba ni jumaa ji eggee donc bu jëlee ko fépp dugub sëñ Modou Xabaan na ko yónnee ku ne ci biir jumaa ji alaaji géey mi ngi fii ci xayra kon ren laay mu wax la ko ak ku ñu amat sekk ñoom ñaar ñoo daa wala jipem mi añ beeg reer bi ku ne ci biir daara ji ku ne ci biir daara ji di ñibbi seen kër nag ñu natal la sa dugub nga yóbbu seen kër ñu ñu togal la foofu waaye noonu la daa def nga xam ne bu ñu ne pemmi la mën a tey rek mooy mooy pemmi pemmi delsi na bu ko bee boo wàccee midi da nga yelwaani añ boo bu dee ngoon itam da nga yelwaani reer waaw jërëjëf Serigne ibrahima sek mel na ni ku dégg sa kaddu dana xam ne wax ji fu ñu ko takk ci ak wér rek weesu na foofa ndax bi ngay tàmbali yaa ngi wax ne ma fa séenee wax li ma fekke ak li ma dund loolu day tënk ñaari wax waxi suñu borom ak waxi yonente bi te moom la ubbee woon léegi wala yu bi nabbiuka mislu xabiir mooy li nga dund lay laysal xabaru kal muayana mooy li nga fekkee te loolu ku dégg sa wax rek dana xam ne lu wér a wér la waaye ci biir wax ji nag yaa ngi junju dong yi doon liggéey liggéey bi lañ daan dundee di wax ne mi ngi bàyyi ci kër sëñ Moodu Xabbaan moo ñuy may ñu dugal sëriñ sëriñ Youssou jaañ mi nga xam ne bi mu ñëw Cheikh Mouhamadul Fadil menn at la fekk ci liggéey jumaa ji la ca des lépp mu ànd kook sëriñ Fallou ba euh, ni mu ñibbee fële mu fële mu nekk te moom mii sëriñ du Xabaan moo ko joxe woon te dund boobu ngay wax it moom jëwriñ la woon ci liggéey ba bokkoon na ci ñi nga xam ne daan nañ béy ca tool yooyee kon moom la ñuy jox kàddu gi moom mu indi moom it ak leeral tàmbulee ci dund boobu nga tudd léegi nako seigne sëñ Muudu dan daan ak pass pass ba ak nim mu keur Cheikh Mamadou Fadil donte amna yit it ay ay ay ay ay ay settali yu des sun suñu ak yow ci xibaar yoy nga doon junj légui lu mel tubab bi li nga wax ci mom ca ba ko seigne bi feño lolu melna ni xel day fatu waye Cheikh mamadou Fadil bam déggé xibaar bi amna lu mu ca wax ñaaral ba addee ji ngeen ko doon yut ci neexal bi len tubab bi doon jox bam démé bam yégué ni tubab bi def na ci alalam amna lu mu seere ca moom ñetteel ba bi tubaab bi ñibbee it te faatu te soxnaam woote yëgal ko suñ fallu am na lu mu waxaat ci moom yooyu seere nag buñ dikkaatee daañ bëgg nga indi leeral gu gën a yaatu waaye kon nañu jox suñu jaañ moom it mu indil leeral ci tàmbalee ca mbay moom nga xam ne moom la suñu mudu xaban daan bay di ko indil kër suñu fàllu donga yi liggéey jumaa ji di ci dund ah, naka noonu it at mi nga xam ne moom la def ak moom su ko defee buñ dikkaatee nag mu doog a tàbbeek ñun ci diir bi jumaa ji àggee mu ànd ak suñu fàllu ba nim ñibbee nun bokki jullit yi ngi leen di siyaare ngir di sant yàlla bu baax ci fii ñuy liggéey fii ñuy liggéey liggéey bii